asalaamualeykum sama mbokki Ngouba Ngéwél yi bi ma ñëwaatee di leen sant comme ni ma leen daan sante ci li ngeen ma defal lépp tey dama ñëw ngir waxtaan ak yéen ci li nga xam ni moom lañ bokk muy Ngouba Ngéwél ak intérêt Ngouba ci li nga xam ni moom lañ jublu muy élection législative yi li may njëkkee nag mooy damay indi keroog bi ñu demee ci mairie bi sama déclaration bi ma defoon te su ma déggee nit ñi day wax day mel ne nit ñi dégguñu ko ndax damay dégguñu naan Khalifa Dia bàyyi na politik ma dégguñu naan bu bàyyee politique pourquoi mu mu mu choisiral ñu Abdourahmane tegal ñu ko fi ñaar yooyu nag. Euh, ku gis sama déclaration boobu te boobu ma ngi ci réseau yi ku nekk mën nga ko dégg bi ma ñëwee dama ak ñu naan dafa feebar man feebaruma tey feebaruma ëllëg xale yi ku ma ci defal cent mètres maa lay raw li tax ma jox ab euh, dëkk bi ma bàyyi ko mooy def naa fi vingt mag laa am na ay xale yu àndoon ak man ñoo yoroon dëkk bi nekk maire yi ma jox leen cër bi ndax nag réew mi réewu xale la ñun mag ñi suñu role mooy jox xale yi encadre leen li xale yi mënul ñu def ko waaye bu xale yi mënee liñ def nañ leen ko bàyyee loolu moo tax ma bàyyee ko xale yi. am na aussi ñaari point yu ma bëgg a leeral benn bi mooy ñi naan lu tax mu teg fi Abdourahmane euh, ma bëgg leen wax ne leen xëy na ñu bari xamuñu nu muy doxee mais. teguma fi Abdourahmane parce que élection la du man may choisir ne ki la man un am candidat nak biñu def élection Abdourahmane moy sama candidat waye 46 conseillers élect euh, conseils yi ñoo wote yawee deux candidats ñu bëgg bu len neexoon ñu jox ku len neex man mënuma len obligé ne diw ngeen di woteel waye biñ bi Abdourahmane talalé kenen talal sur 46 conseillers, Abdourahmane amna 34 voix donc nit ñi ñoo ko tànn man ma ko loolu mooy premier point bi waaye nag moo doon sama candidat ku nekk am nga sa candidat ah, bu ñu dem élection ku nekk danga naan kii laa faral kii laa faral waaye nag nit ñooy wote tànn ki leen neex ki tànn nag nit ñee ko tànn Khalifa Dia tànn ko beneen bi itam am nañu naan euh, bi mu xamee ni day dem warul woon nekk candidat loolu itam wax la boo xam ni mën nañ ko dégg sax waaye boo ko xoolee itam euh, wax la boo xam ni c'est limité man yor naa géewul ñaar fukki at def fi lima man ñepp xam nañu yor nañ ko yor bu bu baax yor bu jup yor bu am njëriñ ci ngumba wax deug yalla sumay dem dina am ko xamni compte tenu lima ma xam ak ñima ma liggey ak lima xam ci dekk bi kima yaakar ni bu ma ko ko joxee dana ko yor ni ma ko bëggee yor ko ni mu te dan ko yor ba fi nekké te musuma gis mu def lu deung musuma gis mu def lu normalul kooku laa ko yéene waaye du moom laa ko yéene kooku laa yéene géewul lay wax ku mel noonu laay yéene mu nekk meeru géewul loolu moo tax Abdourahmane moo doon sama candidat waaye li mu nekk sama candidat candidat conseiller ko wote buñ ko bëggul woon duñ ko wote waaw waaye du ma yor géewul ñaar fukki at liggéey fi li ma fi liggéey di jël risque ñu wote ndax wote kenn xamul fu mu jëm kenn mën na bi ci loxo yoo xam ni mën na nekk loxo yoo xam ni xëy na du li ma ci sama xam-xam ak li ma xam ci nit mooy li gën ci géewul kon nag li ma def mooy sama devoir mooy ñoŋal sama liggéey jox ko koo xam ne yaakaar naa ni du ci yàq dara te waa dëkk bi ñëpp xam nañ ni Abdourahmane du koo xam day yàq dara loolu moo tax ma ma ma mu nekk sama candidat waaye nag du man maa ko élire 46 conseils ñoo wote élire ko loolu bëggoon naa ko préciser. ñi naan tam dafa bàyyi politique defuñ sama déclaration ndax suma déclaration bi ma fo ca ca ca mairie ba bi ma waxee loolu dama leen bu fi kenn jógee nag dem naan xalifa ja bàyyi na politique bàyyiwuma politique mairie Ngoumba laa bàyyee xale yi waaye Macky Sall man la jëm dénk département bi kon bàyyiwuma politique lu nit ñi naan Khalifa Dia bàyyi nañ police sama déclaration ba xam dafa mel ñëpp dégguñu ko loolu bëgg naa ñëpp dégg ko ñëpp xam ko ne bàyyiwuma politique man la Macky Sall def responsable département bi 19 communes yëpp may seen responsable 19 communes yëpp géewul mooy seen njiit lu ñuy joxe ak lu ñuy séddale fii ci nguma lay ñëw waaw kon nag bàyyiwuma politique ndax loolu duma ko bàyyi nguma di ko perte beneen bi nag ma bëgg ñu waxtaan ci mooy li nga xam ne moom lañ jublu ñu bokk ko man bi ma commencé politique ba léegi ngumba mooy tax may politique décision bu ma jël intérêt ngumba tax ma jël ko ku ma àndal itam intere ngumba tax ma ànd ak yow fu ma gisee koo xam ni moom moo gën a baax ci intérêt ngumba damay ànd ak moom tant que maa ngi ci yëngatu ci politique bi lii ñu jublu nag muy élection législative laa bëgg ñu waxtaan ci ñaari yoon rek moo fi nekk woteel opposition bi ak woteel benno ma bëgg nag ñu waxtaan ñu xam wote bu nekk lu muy jural ngumba ci lu baax ak lu muy jural ngumba ci lu bon suñu woteelee opposition de maa ngi laaj ñëpp lan lay jëriñ ngumba lan lañuy ñuy jëriñ ñun waa ngumba bu ñu woteelee opposition bi gisuma lum ñuy jëriñ ndax ngumba commune bu ndaw la même département bi liñ jiital waa ngumba naqari na leen ndax ngumba ci gën a ndaw ci commune bi la ngumba bu ñëpp woteelul woon bennoo du tee Benno day gagné département bi waxumal nag Macky Sall gagné Sénégal ndax nguma tuuti la ci électorat bi te 19 communes yëpp 18 yi Macky Sall la ñu àndal kon commune kon kon département bu Macky Sall da koy la largement bu ngumba gagné da koy gagné bu ngumba gagnéwul da koy gagné bu waa ngumba ñëpp àndoon tam woteel Macky Sall te mu nar a perte département da koy perte ndax Daaru Musi juróom-ñaari ngumba la Kébémer juróom-ñaari ngumba la Colom Fall gii rek ñetti ngumba donc enjeu du ngumba jox opposition bi sen voix boko joxe joxee ñu ben ben Ben, njëriñ maintenant benno pourquoi ñu wara a benno bennoo luñu benno Khalifa Dia ñuy woteel ci département bi Khalifa Dia maxal Macky Sall jël dénk ko département bi mu nek patron département bi luñuy def ci département mom lay ci mom lay jaar luñuy ñuy ci mom lay jaar wa département bi dañ Khalifa ju luñ ko jox mu ko ci ngumba ñëpp bëgg ko te li tax ñu bëgg ko nag du dañ koo bëgg pour politique dañ koo bëgg pour njëriñu dëkk seen dëkk man mii ci rôle nguuru Sall àgg naa ci foo xam ni mën naa jëli di indi damay jël di indi toujours damay jël di indi di jël di indi bi ma nee bàyyi naa meeru géwél tam dama leen bu doon def benn bëgg naa def ñett waaye loolu pour ma man ko il faut ma nekk position ma nekk ci nguuru Macky Sall su ma ko nekkul du ko mën su ngeen gisee mu bëgg yi muy changé ñuy indi yëf yi dama dina ma jàppale ba am nekk position boo xam ne ministre bu ma bëgg gis gis la su ma bëgg gis président gis ko fa ñuy séddalee àgg naa fa mais su ngeen ma wàccee ma wàcc ah ñu jël coordination jox ko beneen commune bu boobaa ngumba mooy perte man nag bëgg naa ngumba bëgg a jàppale ngumba waaye yéen a may jàppale pour ma mën a def loolu man utuma ngumba ben ndomba dul jappel wa ngumba si citoyen ordinaire la comme yéen ñep waye su wa ngumba nak tànnee ne ñun khalifa ja jappelu wuñ ko gagné lañ ko fi ma xamni ne yéen wàccee ngeen ma sama liggéey rek ma dem tok sama kër waaye loolu gënalu ma suma sañon da ngeen di japp rôle bi may jouer mo jouer ko département bi ñu jitt ngumba jité ko lu ñu ku duy ñëk ngumba am seen wal man lolu lolu la yaakaar ni mooy li gën ci dëkk bi loolu la yaakaar ni mu gën ci dëkk bi euh, ma bëgg a wax nag ak sunu mbokk immigré yi ndax ñoom ils ont sur le plan international ñu ngi ci réseau yi di dégg lu bare bare bare bare bare bëri waaye li ma leen bëgg a wax daal mooy nañ xool lii lan moo ci intérêt ngumba nañ xool lan moo ci intérêt ngumba ñoom fuñ tukkee ñëw gis ne xaar-xaru kanamu ngumba changé na li ko waral mooy position bi ma yor ci kaw mën a indi tey jii ñii fi jógee tabaski tabaski ba njibbi bu ñëwaatoon tey jii gis ñu commencé tali goudron yi ñuy commencé ndax engins yi ñëw na gis ngeen ko yéen ñëpp danañ xam ni ngumbaa ngi soppaliku loolu nag li ko waral mooy position bu ma nekk ak ni li ma mën a lijjanti bu fekkente ni nag ci li ma xam fexe nañ ba loolu ngiwul ñàkk ko danañ tukki fukki ak ñëw fekkaat ngumba fa mu nekkoon waaye man li ma yaakaar mooy doo bay say garab ba mu meññ ngay watt di lekk ñun la bàyyi ko mu mu mu mu mu bàyyi ko mu mu mu nëpp nga dem commencé waa di ji man loolu yaakaar naa du yaakaar naa du xel nguuru Macky gi gii liñ ci am suñu ko am fenn ci benn nguur lu ko waral mooy am ngeen doom bu àgg ba fa ñuy décider buñ voté législative même bu ko amul tam Macky du wàcc ba 2014 moo fi nekk. 2024 plutôt moo fi nekk donc vingt ak li ñu ci mën a am nañ ko jël ñu mën a defaree suñu dëkk nañ ko jël defar suñu dëkk defal naa leen lotissement 14000 parcelles lotissement yooyu ñu war ko defal courant lotissement yooyu ñu war ko indil ndox lotissement yooyu ñu war ko defal ay tëli mais kan moo koy defar mais mairie mënu koo defar position bi ma nekk moo ko mën a defar kon bu leen ko yàq jàpp leen ñu bokk jàpp sama yéene ci nguma ma àggal ko ndax sama yéene ci ngumba mooy ngumba nekk première commune waxuma la waxuma la waxuma la département Kébémer mais commune commune rurale yi mu nekk première commune du Sénégal man loolu laa leen di ñaan loolu laa yaakaar ni mooy li gën ci dëkk bi ku leen wax leneen di leen di wax loo xam ni amul benn njëriñ amul benn njariñ man su ma wóoroon ni opposition bi suma ma ko woteelee ci la ngumba yi gën a baax ma dem woteel ko waaye ku ne xam na ni opposition bi defar ngumba Macky Sall du ñëw di defar ngumba Sonko du ñëw di defar ngumba ñun waa ngumba ñoo koy defar te nag dama leen di wax dara li ngumba am yombul de am politicien di ko jàppale di ko jàppale ba mu àgg instance ci kaw di gis président di fekkee fa ñuy décider mën nañ fee toog téeméeri at dootuñu ko am ndax occasion la boo xam ni yàlla moo ko joxe du jàmbaar du dara yàlla moo ko jox kon nañ ci profito am ci liñ ci war am lépp bu Macky deme demee ñu commencé xool ne leen nu ñuy def man kat loolu moom mooy li nga xam moom laa yaakaar ni mooy li baax ci dëkk bi te man li ci baax dëkk bi rek moo ma yëkkati man awma ci lu may ut ci dëkk bi bugguma fee nekk maire bugguma fee nekk dara lu dul doomu dëkk bi bëgg a defar nag bëgg a defar nag ñe ñeme naa sonn ñeme naa joxe sama alal ñeme naa lijjanti waaye li may may doole mooy lii ñu ma jox ngeen jàppale ma ci bëgg naa bu élection yi ñëwee résultat bi ñëw ngumba jël paie. su ma demee ci Macky Sall ma siggi su ma laajee mu jox ma ma indi laajuma pour xalifa ja laajuma mu sama famille li may laaj mooy ngumba ngéewul donc loolu damaa bëgg ñëpp jàpp ci mooy devoiru ñëpp laa wax loolu moo am solo de ku yàlla dimbali doo sonn ci lu amul njëriñ man de bëgguma sonn ci lu amul njëriñ bëgguma sonn ci lu amul njëriñ yéen ñeent bu leen sonn ci lu amul njariñ li ngeen di def xool leen ko ngeen ni lii suñ ko defee lan la ñuy jural seen âme et conscience ngeen lan la ñuy jural bu leen dee jural lu baax war ngeen ci sonu bu len dul jural lu bax nak bu len ci sonu ndax politique dafa am lo xamni ño xam dañuy contrainte ñi bëgg li ñi contre ñi waye ki nga xamni citoyen la mom nga xamni mom dëkk bi la moo ñor na xol rek li bax na xol rek li nga xamni moy avancer na xol rek li nga xamni moy intérêt mom mu japp ca lool la lu ma di wax di len nuyu di sant wassalam.